xàmmee ne dabaatal ga wees na mooy mu rukkoo ba siggi door a fàttaliku ne moom kat jàngul fatiha foofu moom fala dabaatal ga weese boo xoolee sarabale moom day wane ne bu fekkoon ne loolu da koo dal ci rakk bu jëkk xam ne ku ci ci biir la moom ne lay wax ne wa amma law fi rakxati al ula qabla ikmaliha bi sajdatayha la alga ma faalahu min assujudi wa rukuci wastanafa qiraat alfatihati wa in lam yadkurha xata qaama litaniyati fa innahu yulqiiha wa yajxalu attaniyata allati qaama laha mahallaha moom daa wax ne su fekkoon na ci ràkk bu jëkk ba la li feeg muy jàll ca bopp ñaareel ba rek nga xam ne jàll ca bopp ñaareel ba rek saa yu fàttalikoo ne jàngul faatiha day dellu jàng faatiha ja rek donte fekkoon ne sax mu rukkoo ba sujjóot it day dellu jàng faatiha ja baamuwaat rukkoo yaag sujjóot ya rek waaye du bàyyi faatiha ca boobu rakka su xasee dem nag léegi ba ca rakkam ñaareel ba mooy taxaw na ci rakkam ñaareel ba door a fàttaliku ne ah rakka beekat jàngu ci woon faatiha kon nee na day def rakkab ñaareel boobee mu far sokkiku rakkaam bu njëkk mu daal cey jàng fatiha jàpp moom léegi amatul bu njëkk mu teg ce wa in tazakkaraha fi thalithati qabla rukuhi fa innahu yaqra'uha maha suurati wa yajhaluha thaniyatan su demoon ba ci rakkam ñetteel ba ba taxaw ca door a fàttali ko ne ah man kat sama rakka bu njëkk jànguma ca woon fatiha kon foofee rakk boobu mu toll ca taxawaay ba na ca jàng fatiha ku saar ñetteel woon waaye na ko defum ñaareel dal ci jàng fatiha saar su ko defee nag boo ko dee seet bu julleem gi àggee ndooleen kese moo ci am mu sujjóot baxda salaam wa tax naa waye sujudu fi zalika kullihi baxda salaamin maxdu siyaadatin boo xoolee la jëkk loola ca saraba mu naa la li ann kalaamal musannifi mahmulun xalama ida tadakkara fi raabihati li ja'lihi as-sujuda qabla as-salaami fa innahu yaj'aluha thaalisatan wa ya'ti bi raabihatin bi ummi al-qur'aani faqat fa yajtamihu lahu naqsun wa ziyaadatun as-siyaadatu hiya ar-rak'atu al-mulghaatu wa naqsu as-suuratu wal-juluusu li anna al-juluusa fi ghayri mawdihihi bi manzilatil xadam nu far waxaale foofu lay tee nga mën a dabaatal ponk boo bàyyi ci cib ràkka jàppal ne ràkka boo xam ne bàyyi nga ca ponk ba jàll ca rakk ba ca topp ba rukkoo ca ba siggi kon xamal ne ràkk ba jiitu woon bàyyi ca ponk ba dabaatal ga wees na ràkk boobee ca topp nag moom ngay far soppi mu wecc booba nga xam ne bu fekkee booba bu njëkk la woon loola moo soppiku sabu ñaareel ràkk ba ca mujj moom laytee nga mën a dabaatal ak ponk boo bàyyi ca moom mooy nga dem ba sëlmal ci sëlmal goo jàppoon ne julli ga mat na ne bu fekkee jotu laa sëlmal mbaa sëlmal nga waaye ci njuumte dong la ko it ponk ba nga fàtte woon da nga koy daal def rek mu daal di baax waaye nag ràkk ba ci mujj moom boo ci sëlmalee te jàpp ne julli ga daa mat kon na ngay bàyyi booba rakk moom it weccee ko beneen ràkk waaye doo mën a def ponk ba rek loolu mooy takk-takk bi wa man sahaa ku juum an takbiratin walis benn allahu akbar aw xan samiha allahu liman xamidahoo wala walis samiha allahu liman xamidahoo maratan wenn yoon aw il xunooti wala xunóot falaa sujooda dee sujood alayhi di ko war ku fàttee wax benn allahu akbar wala mu fàttee wax benn samiha allahu liman xamida loolu du jar mu di ca sujood bu ko tayee sax sujood ca julli ga yàqu xunóot moom dañ koo sopp rek agul sax ci sunna ba tey su ko bàyyee du aajowoo sujootal bu ko sujootalee te tay ko julli ga su bàyyee nag ñaari allahu akbar nag wala ñaari sami allahu liman hamida nag kon na ko sujootal wa ma nin sarafa ku wëlbatiku mina salaati bàyyi ko ci julli ga ma zakara topp mu fàttaliku ne annahu naka moom baq ya des na xale yi war ko min ha ci julli ga shay um dara fal yarji kon na dellu defi ko in kaana dem nekk na bi qurbi zalika ci jegeeg loolee fa yu kabbiru te muy kàbbar takbiratan ab kàbbar yuhrimu boobu dana armale maanaam boobu dana yéene rek bi xaaja moom summa yu sel yi topp dana julli maa la nga xam ne baqee desoon na xale yi war ko nee na boo jullee ba wax asalaamaaleykum fekk na booba dangaa jàpp ne julli gi mat na moo tax nga wax asalaamaaleykum gannaaw ba nga fàttaliku ne julli gi matut ni ki bàyyi nga ci ab rukkoo mbaa ab sujjóot mu nekkoon nga daal di gaaw dem defi loolee nga xam ne moom nga bàyyi woon léegi nag day aajowoo nga wax allahu akbar te yéene ca yéene mot li julli gi a ji moom mënta ñàkk daañu sopp itam booy wax allahu akbar ba nga yëkkatiwaale ñaari loxo ya su ko defee nag day woo itam nga dellu fa nga bàyyi woon julli ga bu fekkee ba ngay bàyyi julli ga booba cib toogaay la woon ngay dellu cib toogaay bu fekkee da nga amoon ñaari rakka jàpp ne julli gi mat na daal di sëlmal kon da delluwaat ci jataay daal di yéenee mot li julli gi wax allahu akbar su fekkee da nga benn rakk képp daal di wax asalaamaaleykum mbaa boog nga amoon ñett rakk te du timis nga daal di sëlmal lépp jàpp ne julli gi mat na ba nga jógee ba taxaw na nga door a fàttaliku ah yow kat sa julli gi matut kon booy dellu dañuy seet fa nga bàyyi woon julli ga mooy fa nga bàyyi woon julli ga mooy sujjóot ba ñoo bëgg wax ne wa in kaana sallama min rakahatin aw salaasin fa zakara wa huwa qaa'imun rajaha ila xaalati rafi rasihi min as-sujoodi wa ahrama minhu wala yajlisu kon ngay dellu ba mel ni daal ku sujjootoon bay siggi fa muy toll foofu ngay toll nag daal di foofa mottali julli gi kon ci takk-takk rek saa demee ba wax asalaamaaleykum ngi jàpp ne julli gi matoon na gannaaw ba nga fàttaliku ne ah matutoon kon booy dellu ci julli ga ngay ànd ak yéene wax allah akubar te de mooy fa nga bàyyee woon julli ga foofu ngay dellu tàmbalee fa loolu nag mooy bu fekkee gaaw na koo fàttaliku nga xam ni yàggut wa in tabaax da ndeem yàgg na daalika loolee aw xaraja wala mu génn minal masjid tukkee ci jàkka ja ibtada am mu tàmbaliwaat salaatahu julleem nga bu fekkee ne nag daa am loo bàyyi ci julli ga julli ga matut ba nga sëlmal ngir jàpp ni mat na ba mu yàgg na nga door a fàttaliku ne a ah, man kat saa julli ga matutoon kon julli ga nga war koo ba tey bu fekkee sax yàggut waaye jóg nga fa nga doon jullee daa am ñu koy jàppe ak yàgg jóg fa nga doon jullee muy jàkk muy feneen dañuy ak yàgg la daal jàpp ne kon da war a tàmbaliwaat julli ga waaye mëni su ko defaraat wagal saalika naka noonu mën na seeku fàtte asalaama wax asalaamaaleykum maanaam koo xam ne daa fàtte wax asalaamaaleykum bu fekkee gaaw na koo fàttaliku kon day wax allahu akbar yéene mot li julli gi daal toog baamu waat taaya ba noppi nag doole wax asalaamaaleykum xam ne ñoo bëgg asalaamaaleykum topp taaya ko defee nag mu sujjóot ba salaam boole ca bu fekkee yàgg na nag moom mbaa mu jóg fa mu rek door a fàttaliku ne moom ko waxatoon asalaamaaleykum kon julli ga yàqu mook teqale bee nga weer suñoo bokk boo dee xool nag saraab alfawaakihu dawaan yi day leeral ne boo déggee li taalifkat bi wax falaa yunaafi anna naasiya salaami yutasawwaru fiihi xamsatu ahwaalin yarji'u bi ihraamin wa tashahhudin wa yasjudu ba'da salaami fi suuratayni wa huma attoolu almutawassitu aw mufaaraqatul mawdi'i nee na seet ki fàttee sëlmal jamtalu na juróomi mbir moom te yéene wax allahu taaya sëlmal te bu sëlmalee mu sujjóot baxda salaam yooyu yaar nag mooy bu fekkee ne yàgg na yàggaay bu digg doomu yàggut lool lool te it yàggadiwut wala boog mu tàqalikoo béréb ba mu toogoon yooyu yaar daal ci lay defee noonu ak taalisu ak tóolu jiddan fatabtulu salaatuhu ñetteel bi nag mooy mu fàttee sëlmal ba mu yàgg lool kooku moom julli ga day yàqu alqurbu jiddan wa fihi wajhaani ahaduhuma al inxiraafu an il qiblati wa yactadilu wa yusallimu wa yasjudu bada salaami min xayri takbirin wala tashahudin ñeenteel bi mooy mu gaaw ko fàttaliku lool lool kooku nag am na ñaari anam benn bi mooy mayoon na xibla waaye nag mooy xibla ba taxul muy ëpp kon da yemoo rek daal di wax asalaamaaleykum sujjóot ba xam salaam waaye foofa nag moom du fa waxante allahu akbar du fa baamuwaat taaya wastaani an laa yan xarifa kooku fa yusallimu faqat wala sujjóoda alayhi ñaari anam yi nga xam ni moo aju ci bi mu ko gaawee fàttaliku lool lool mooy fëru sax mooy xibla te gis nga ne yeggul dara dara kon day wax rek asalaamaaleykum sujjóot du ko war dara du ko ca kon fa haadihi xamsatu ahwaalin loolu juróomi mbir la wa ma lam yadri ku xamut ma salla la mu julli asalaasa rakaxaati ndax ñetti rakk la am arbaxan wala ñeent banaa mu jokk alal yaqiini ci wóolu ba wa salla te mu julli maa la nga xam ne chàkk sikki sàkk na fii ci moom wa ataate mu dikkee biraaju xatin ci am ñeenteel wa sajada te mu sujjoot baxda salaamihi ci gannaaw salmalam ba nee na bu fekkee da ngaa xamut ñaata rakk nga julli nga nattali ba xam benn la wala ñaar wala ñaar la wala ñett wala ñett wala ñeent yooyu moo da ngay jàpp la gën a wóor rek la gën a néew moom wóor na la ne am nga ko la gën a bari kay moom nga sikki sàkk waaye booy sikki sàkk benn ak ñaar benn wóor na la booy sikki sàkk ñaaram ñett ñaar wóor na la booy sikki sàkk ñettam ñeent ñett wóor na la da ngay jàpp la wóor nag daal cee teg la ngay sikki sàkk ba noppi nag sujjóot ba xam salaam ki booy sikki sàkk benn rakk nga am wala ñaar da ngay jàpp ne benn nga am daal jàll sësale ci ba mat booy sikki sàkk ñaaram ñett da ngay jàpp ñaar na ñaar nga am daal jàll sësale ci ba mat mooy sikki sàkk ñett ak ñeent nga jàpp ne ñett nga am daal jàll sujude ci ba mat ba noppi nag sujud ba salaam tawaxale ko saytaane wa man takallama ku wax saahiya mbir mu muy aji joom sajada kon mu sujud ba xadi salaam yi ci gannaaw salmal ba bu fekkee da nga julli ba yàgg nga wax wax goo xam ne da ngaa juum rek dikk da ngaa fàtte woon ci julli nga nekk kon da ngay sujud ba salaam rek mu daal di baax boo ko tayee ba noppi nag wax te du defar julli ga nag waral ko nag moom julli ga day yàqu niki mel na nga julli rek ñu woo daal di wuyu ndax fàtte woon ci julli nga nekk loolu njuumte rek la nga suyoo ba salaam rek du wàññi dara wa mu lam yedd rek ku xamut asallama ndax salmal na am lam yu sallim wala salmalut sallama mu salmal wala sujjóota te dee sujjóot xale yi di ko war nee bu fekkee da ngay nattali ba xam wax nga asalaamaaleykum wala waxoo ko da ngay jàpp li gën a wóor ni waxoo ko daal di koy wax rek fi saasa te dara du la ca war wa man istankahu koo xam ne taxoo naa moom achakku sikki sàkk fi sawi ci njuumte fan yel xa nay jëllale xan walis ko wala islaax di dub defar xale yi di ko war maanaam koo xam ne moom seytaan da koo jekku ba nga xam ne bu dee julli rek faaw muy sikki sàkk ba xam mat naa matut te lam juum moom du ko xam moom kay day sikki sàkk ba noppi la muy sikki sàkk du ko xam te bis bu ne mu daal ko lum néew néew benn yoon kooku jax-jax lay indi ak na jàpp ne mat na rek bu dee sikk sàkka mat naa matut na jàpp na rek bu dee sikk sàkka juum naam juumul na jàpp ne juumul rek ba noppi nag bu soobalee sujjóot ba salaam tooxale ko seytaane waaye bu dee jéem a defar rek mbaa a naa juum naam juum ma rek loolu day yokk rek jax-jaxi gi te jax-jaxi moom day màbbu diine mu daanu fi suuf moo tax léegi mu ca teg ne walakin waaye xale yi war na ko ay yes jula mu sujjóot xadi salaam bi gannaaw sëlmal loolu xale yi boobu du war ak dëgg-dëgg waru sopp rek la dañoo sopp rek bi jullee ba sëlmal na sujjóot baxda salaam ndax tooxle ko seytaane waxuwa moom allasi mooy ka nga xam ne yekk sul day bari zaalika loolee min fu ci moom nga xam ne yow sukku day sikki sàkk na ci mu nekkee sahaadi juum zaada moo xam yokku na aw naqas wala mu wàññi wala yoo xam ne tëdd wóolu kooku falees jut ne sujjóot rek baxda salaam gannaaw sëlmal te ko dëgërale loolu daa wax ne kooku mooy ki nga xam ne jëf yi jaaxee sikki sàkk day bari ci moom lool saa nekk rek mi nattali naa juum na maam juumuma damaa yokkam damaa wàññi lu mel noonu day jàpp ne rek mat na bàyyi ko noonu la mu sikk sàkk bu mu ko andi nay bàyyi noonu rek te bu sëlmalee mu sujjóot baax de salaam dafa toll woon ci falees jut na sujjóot baax salaam ci gannaaw sëlmal fàqa dong ka nga xam ne moom daal dafa bari jiixi sàkk bis bu ne dal ko muy nattali ba xam juum naam juumut du xam daa yokk doo xam daa wàññi dañoo waxoon da ko jëlale bañ koo faale lu mu sikki sàkk bu mu ko def bu sëlmalee na sujjóot ba salaam ndax tooxale ko seytaane wa ida ayqana ndéem wóolu na bi saxwi ca juum nga nag sajada kon mu sujjóot baxda ci gannaaw defar julleem xam ne moom juum na te xam na lam juum boole ci kon da koy defar bu ko defaree itam xool sujjóot ba nga xam ne moo ca war mu def ko nit koo xam ne daa fàtte ci baraka ab rukkoo mbaab sujjóot yéex ko fàttaliku ba dem ba ci ràkk ba ci topp ba rukkoo ca ba siggi dañ ko waxoon ne ko kon ràkk ba nga fàtte woon farata ja da koy bañ a limaale bii nga toll wecc booba kon xam nga bu defee noonu kon defar na ko ko defee nag mu sujjóot ba xam salaam ci fekkee ndoolin kese moo fa nekk mu ba xam salaam bu fa yaar yëpp tasee doole wàññi mu def xabla salaam fa in kasura ndem bari na dalika loolee minhu ci moom nga xam ne foofu moom yaatari yi da koy gaar kasiran lu bari aslaha kon mu defar rek salaataxoo jëleem nga walam yes jutte du sujjóot li sax yi ngir juumam nga maanaam bu fekkee ne moom li muy juum dana ko xam waaye nag daanaka bis bu ne mu ko dañ koy wax ne kon ndegam li da ko xam kon da koy defar waaye nag sujjóot ba nga xam ne moo ca doon war maanaam daal sujjóot ba nga xam ne dañ ko doon sàkku ci yow bu fekkoon ne nekkul lu taxaw yow sujjóot boobee léegi mën nga koo bàyyi mais misaal ma joxe woon koo xam ne bis bu daal moom bu jullee julli dana fàtte ci rakk bi ak ponk jàll ci ba ci topp baru koo ca ba siggi mooy boobu fasu mu doon ko fàttaliku ko xam nga faaw xam na lim juum waaye bis bu ne mu dal ko ni mu koy defale xam na ko mooy rakk ba mu bàyyi farata te mënu su koo dabaatal ndax dabaatal ga wees na da bu ko limaalee te koy génne ci julli gi ba sës ci mu wecc ko lu mel noonu nag fu ma ame benn yaar tase fa doole wàññi ñu digal ko xabla mbaa doole kese am fa ñu digal ko baax da fekkoon ne mu taqoog moom kon faaw rek dañ koy digal sujjóot boobee waaye nag bu xësee taqoog moom ñu ne ko boo defaree rek baax na jéggal na la sujjóot ba du aajoo defati wa man xaama ku jóg minis na tey ni bàyyi ko ci ñaari rakk rajaxa kon mu dellu ci julli ga maalam yu faaraq li fekk teqalikoo wut ak suuf bi wa ya fa isa faaraqahaa ndem teqalikoo naak daa mu wéy wala mu yar jif te du dellu wa sajada te mu sujjóot xablu salaam njëkk sëlmal nee na boo amee ñaari rakk dañ laa digaloon nga toog foofa taaye taaye digg ji boo tàmbalee jóg nag léegi ngir fàttali ne foofu ñaareel la gannaaw ba saa yoo ko fàttalikoo te fekk ba tey say loxoog say bëtiwoom am na ca luy laal suuf kon ngay delluwaat toogaan ndànk daal di taaye jóg jàll te dara du ca nekk su fekkee nag léegi say loxoog say bëtiwoom dara laalul ci suuf nag nga wéy nag benn yoon rek xam ne jël nga taaye digg ko defee nag taaye moom boo ko bàyyi rek nga ñaari sunna muy taaye ja jataay ba su ko defee nga sujjoon na qabla salaam wa man sakara ku fàttaliku salaatan julli sallaha mu julli ko matama saa yu ko fàttalikoo xalaa nax ma ci lu xam ne wala nga ne ci niroog la nga xam ne faatatu faate woon na ko tuma ahaar topp mu baamu la nga xam ne kaana nekkoon na fi waqti ci waxtoom ma fi waqti ci la nga xam ne salla julli woon na ko baxdaha ci gannaaw nee na saa yoo fàttalikoo ak julli moom mbaa nga nelaw ba yeewu far fekk julli ga jàll kon faaw rek nga fay ko daldi koy julli kon jàppal ne saa julli ak julli ba noppi door a fàttali boo ko waroon tegaleel mooy bu ko nga xam ne moom nga fàttali ko boo noppee nag te fekk gi ngeen ba noppi waxtu wa jeexoon nga baamu ko ngir mu sëste googa rek ñu tegaloo ñoom ñaar bu waxtu wa jàllee du aajoo nga di ko baamu ci misaal mi ngi mel ne rek nga julli nga julli tisbaar ba àggal fàttaliku ne julli woon suba da ngay julli suba ba noppi ñu taamu nga baamuwaat tisbaar ndax ñu tegaloo ñoom ñaar waaye nag li fee yaa ngi ci waxtu tisbaar rek la baamu gi ba waxtu waxasee jàll jeex na wa man xale si koo xam ne war na ko salawaatul ay julli kasiirat ñuy aji bari sallaaha mu julli leen fii li waxtu ci waxtu mi ne leen ci guddi aw naxaari wala bëccëg wa inda tuluuxi samsi ak fa fenku gent wa kay fama tayassara ak naka mu jàppandee la hoññal ko daa wax ne ku ay julli bari war muy muy bor waaye moo genn julli war ko ci bor ñooyemoo rek moom dafa bëgg wane ne fay bor moom amul wenn waxtu wuñ ko araamale amul waxtu ko sibee xam nga jamono jant bi tàmbalee fenk te lépp fenkagut dañoo araamal naafila jamono jant bi tàmbalee so te lépp soxagut dañuy araamal naafila gannaaw boo julli takkusaan dañuy sit naafila mu ne nag fay bor moom mënees ko ci waxtu yépp moom boo xasee amee bor julli daal moom gannaaw boo sàkkoo sa daal ba noppi da taxaw temm ci fay bor julli yi rek mën nga cay fay nag moom ak nam rek wa in kaanat dem nekk nañu yasiratan di aji néew aqal la di yees min salaati yow mu julli benn bëccëg wala lit ak guddi ba da jëkk bi hin na ci ñoom wa in ak doonte nar naa raw waxtu ma la nga xam ne xoo moom fi waxtu si nekk na ci waxtoom wa nee na bu fekkee julli la raw bëriwuñ bëriwuñ nag ñeent moom ñëpp maase na ci ne bëriwut ñeent ñett ñaar genn jàpp nañ ne moom lu néew la fekk loolu nga am na ci am genn goo xam ne yaa ngi ci waxtoom a jiital yooyu nga xam ne ñoo la raw nga toll doonte xam nga ni sax boo fi dee fayee far gi itam raw la ne ñoom du tee nga war a jiital yooyu ba ci gi wayen la nga xam ne yaxaafu na ragal fa waatu waqti yi waxtoom wa bu fekkee la raw ci ay julli ëpp na juróom moom bu juróom benn jëm kaw maase nañ ci ne bari na su boobaa bu fekkee am na julli gu teew te ragal ne boo firee julli yooyee gi itam raw la kon da jëkk julli gii nga xam ne moo teew ba noppi door a fay yooyee nga xam ne ñoo la raw te bari am nañu ne loolu moo ko wax rek waaye saa yu xasee bari moom julli raw rek da ngay jiital gi nga xam ne moo teew donte sax xam nga ne mën nga fee julli ba noppi te moom it la raw jooju wax lañ gën a sukkandiku. traag mu ne la wal mu'tamadu ma rawaahu bunul qaasim te mooy annahu wala innahu yabda'u bil xaadirati mutlaqan daaqa al waqtu ay tasa laakin wujuban xinda diixi waqti wa nadban xinda tisaaxi wa man zakara ku fàttaliku salaatan julli fi salaatin ci biiru julli fasadat kon yàqu na haadihi gile alayhi war ko ñu boo dee julli ab julli fàttaliku goo xam ne des leen war a tegale ñoom ñaar kon gii nga nekk yàqu na waaye loolu da ko waxee noonu rek waaye mat naa teylu bu dee yaari julli yu bokkaale waxtu moom te xaj nañ ci waxtu wa yaari julli yu bokkaale waxtu mooy tisbaar takkusaan am nañu bokkaale ci waxtu timis am nañu bokkaale ci waxtu yaari mel noonu nag moom li fekk xaj nañ ci waxtu wa boo jullee ku ñaareel ga te julliwoo ku jëkk ga ku ñaareel ga nga jëkk julli du baax mel ne takkusaan jot nga tey ko xam ne julliwoo woon tisbaar nga jëkk julli takkusaan takkusaan du baax ndax foofu dañuy sart mu tegaloo ak tisbaar ba tey bu gee jotee nga tey ko julli gee te julliwoo woon timis te yaa ko tey gee ga du baax foofu moom fi lay yàqoo waaye nag bu dee yaar yoo xam ne bokkaale wuñu waxtu mel ne nga julli tisbaar fàttaliku ne julliwoo suba amuñu bokkaale kooku boo bañee bàkkaar bi da ngay dagg tisbaar dem julli suba doo ñëw tekki tisbaar ndax ñu tegaloo nga bañ am bàkkaar waaye bu fekk regaloo ci bàkkaar bi mën nga koo tay ba noppi sax mu wër la ne julliwoo woon suba nga njëkk julli tisbaar doo julli suba waaye nag da nga am bàkkaar ci ñàkk gaa tegale kon jàppal ne bu dee yaari julli bokkaali waxtu te xaj nañ ci waxtu moom tegale ga ab sarte doon ci yoon julli ga bu dee tisbaar takkusaan daal li fi xaj nañ ci waxtu wa boo njëkkee takkusaan tam te tey ko xam ne julli woon tisbaar takkusaan moom nga njëkkee du baax boo defee tisbaar tam faaw nga baamuwaat ko bu dee timis ak gee ñu xaj ci waxtu njëkk a du baax waaye nag bu dee yaar yoo xam ne bokkaali wuñu waxtu ñu ma ko misaal lay tisbaar ak suba mbaa suba gee nga julli ga teew tey door a fay nga ko jiitu it danga am bàkkaar ci tey nga ko rek bañ leen tegale waaye du tee jullit nga jiitam jëkk ko jul tuwatee baax loolu mooy teqale bi ba tey sax bu fekkoon yaar ya bokkaale wax dañoo dem ba nga leen di fël nga xam nekkatu seen waxtu ba tey booba tegale ba du nekkati ab sart tegale ba lu war lay doon boo ko bàyyee bàyyi rek waaye ndegam xëy xëyituñ ci waxtu wa mbaa nga leen fay moom jeex na mooy yëpp yam wa man daxika goree fi salaat ci biirum julli ahaa daxaa mu baam julli te du baam alwudu njàpp nee na boo dee julli reeree gu am kàddu reeree gu am kàddu ga day yàq julli waaye nag du yàq njàpp ma kon julli ga ngay baamu waaye njàpp ma ci boppam moom doo ko baamu ndax reye bokku ci te njàpp wa in kaana dem nekk na maxa imaamin ànd ak ilimaan tamaa daa mu wéy wa axaada te mu baamu nee na bu fekkee da nga ànd ilimaan di julli ba noppi ree ree gu am kàddu kon sa julli yàqu ne waaye ilimaan jaay tax doo mën dagg julli ga da wéy ànd moom waaye ci sartu waxtu wa yaatu te nekkul julli juma te boo ñëwee doo reeloon ca waaye bu waxtu waxatee mbaa julli juma mbaa boo ñëwee reeloon ca des war nga dagg moom waaye bu ci yooyu amul nag moom day war nga wéy ci julli gu yàqu nag nag bu ilimaan noppee nga julliwaat ndax julli nga julli woon moom baaxut ndax reega wala soo dara xaale yi ko war fi tabassum ci mooñ mooñ mooy reegu amul kàddu mooñ mooy tuñ rek yëngutu kooku moom mbari ba yëngutu mbaa ndog yëngutu ñooy moo du yàq julli waaye nee nañu sax soo ko bari lee moom muñ goowu ñu jàpp ku jëf ju bari julli gi yàqu aji war naa teyelu buñ nee ko bari lee ñu jàpp ne jëf nga ci julli gi jëf ju fi salaat ci biiru julli kalkalaat mi mel ni ko wax wala xaamidu aji tey li daalika ñeel loole muf ci aji yàq la li salaati yi ñeel julleem nga dana julli tay ko ba noppi ëf ak gimiñam moog julli tay ko ba noppi wax ñooyemoo julli tay ko wax te yàq julli ga ko da yàq julli ga ba tey julli wax te tayoo ko ndegam bariwut du yàq julli ga ba tey julli ëf ak sa gimiñ te tayoo ko moom it du yàq julli ga suñ ne du yàqu nag ndax ñoom te ko waral te bariwut kon kooko day sujjóot bax de salaam moo xam wax nga moo xam a nga ci gimiña waman axtaa ku mooy alqiblata qibla ahaada mu baamu fil waqti ci waxtu wa koo xam ne ba waxtu wa jotee seet na tegtal ya nga xam ni moom la daan tegtaloo ci xibla mu daal di koy def daal di julli jëm fu nga xam ne fa la ko tegtal yi wan gannaaw bu mu jullee ba noppi nag mu gis ne moom kat mooy na xibla kon julli ga baax na waaye daañu taamu mu baamu ko ci waxtu wa bu doon koo xam ne nag moom dafa seet seet ay tegtalam mënta xam fenn fuy xibla mu daal tànn wet ga ko neex julli jëm fa jeex na du ajo wa muy baamu ba tey bu fekkee ne moom amul yenn tegtal yu mën a tegtaloo ci xibla te gisul kenn koo ko wax gisul jenn jàkk ju wóor moom itam mu tànn fa nga xam ne rek moo ko neex ci wet yi wet ko neex mu julli jëm fa ba tey kooku jaanam wàcc na waaye nag ka defoon ay tegtalam ba àggal nag gannaaw ba mu seetlu ne moom kat fa mu jëmoon du xibla fekk na mu julli ba noppi kooku lañ sopp mu baa mu julli ga mu des nag bu fekkoon daa nekk ci biir julli gi ba noppi yëg ne moom kat jubluwul xibla kon dañuy seet bu fekkee ne gumba la wala boog mayit lu bari kon day jëm xibla ndànk rek du aajo muy dagg julli ga waaye bu fekkee ne njàccaar la te mooy na xibla lu bare bari mu yëg ko ci biir julli gi kon day dagg julli ga wa kazalika naka noonu man sàllaa ci malaan najis mi aju xalaa makaanin wala ci béréb najis bi aju sobewu maanaam ku julliwaale sobe ci yaramam mbaa bérébam doon jullee mbaa ci yéreem gannaaw ba mu jullee ba noppi nag mu dal koo fàttaliku ba tey julli ga baax na waaye daañu sopp rek mu baamu ko ci waxtu wa su waxtu wa xasee jàll mët a baamooti wa kazalika naka noonu man tawadda ak ku jàppe bi maa in ci am ndox najisin mi aju sobewu mu di muy wuute fi najaasatihi ca sobe woom nga loolu ba tey bul ko jàpp dalaa waxan ci njëlbeenu téere ba soriwutoon ci njëlbeen ko daal nela ndox moo xam ne daayam rek ci jàpp mbaa sangu farata bu ci tuut sobe demee nga xam ne kenn mënu ko caa xàmmee teewul yàq na ndox ma lu waxan la ne la loolu da koo wax rek waaye bul ko jàpp mooma ndox dañ koo sib rek ci kaw nga am meneen waaye bu fekkee amoo meneen kenn sibu ko loolu nag moom ci la delluwaat ne la ndox mel noonu ku ci jàpp daañu sopp nga baamu ci waxtu wa te ku ci jàpp itam du tax ñu sopp nga baamu ci waxtu wa déedéet wa am maaman daal ka nga xam ne tawadda a jàppee na bi maa in ci am ndox xadd taxayyara moom soppiku na lawnuhu kulóoram aw taamuhu wala cafkaam aw riixuhu wala xetam ahada kon mu baamu salaatahu julleem ga abadan faaw wa wuduahu ak njàppam ma nee bu fekkee da ngaa jàppee ci ndox moo xam ne waroo ci woon a jàppee ndax daa soppiku ci melo mbaa cafka mbaa ci loo xam ne doomi aadama mën na koo moytu ba du ko soppi ñu wax ne moomu ndox mënta jaamu yàlla kooku boo jàppee julli ca itam da ngay baamu njàpp ma baamu julli ga su fekkee ndox mel noon rek moo fa am saye boo bàyyi ko fa dem tiim ndax boo ko jëfandikoo itam ni ñu ko waxee rek la nga def du baax waru xisa yàlla ma leef na fil jam yi ci boole baynal maxali bi diggante timis wal xisaay ak gee laylatul matari ci guddi taw na bu fekkee asamaan si ni mel bu ko masaa mel daal moom daana taw mbaa boog far ma ngay taw sax taw bu baree bari kon daañu def jàppandal ci ñoom waa jàkka ji ñu far boole timis ak gee benn yoon julli timis fa saasa sësale ca gee fa saasa rek ñi béendoo benn yoon taaye dem di dellu si wa kazalika naka noonee fii tinin ci ban wa zulmatin ak lëndëm ba tey bu fekkee ne sax tawut asamaan si te muruut luy taw waaye fii aw dem jàkka ja dafa lëndëm ba noppi am ban nga xam ne doo dox rek muy summi say daal kon daañu may jàppandal ci buñ jullee timis la daal ci sësale gee rek benn yoon ñibbi benn yoon xam du aajowoo ñu jul timis demaat ñëw jul siwaat gee dañuy far boole yaar yëpp rek benn yoon jullee ndoo ko daal di ñibbi ni lañ koy defee yu addinu dana noddu lil maxrib bi ñeel timis awal waxti njëlbeen waxtu wa xaarijal masjid ca biti jàkka ja su may axlu topp dana yeexe xalilan tuuti bu timis jotee dañ koy noddal ca waxtuñ ko daan noddal te it nodde ko ci bitti jàkk ja mooy fañ baaxoon nga xam ne bu fekkee rajo lañ daan nodde ba tey dañu nodd ci rajo ba rek kon lil addina dana nodd lil maxribi ñeel timis awal waqt njëlbeen waxtu wa xaarijal masjid ca bitti jàkk ja su may axlu topp dana yeexe yi lan tuuti bu dañ koy noddal ca waxtuñ ko daan noddal te it nodde ko ci bitti jàkk ja mooy fañ baaxoon nodde nga xam ne bu fekkee rajo yi daan noddee ba tey dañu nodd ci rajo ba rek kon bu yëkkati ko nam daan yëkkati ko bu ko defee ñu yeexee tuuti nag bañ a gaaw a taxawal ndax ñi yàlla mooy xéewal ci ñu fekkee si boole gi ñu mën ñu mën ca ànd mooy su may axiru xalilan fii xawli Malik ci waxi Malik su ma yëqi mu topp dana liqaam fii daaxil masjid ci biir jàkka ja wa yusalli xaatem koy julli ko defee nag daal di taxawal timis daal di koy julli tuma yu addinu topp dana nodd lil ishaay ñeel gee fii daaxil masjid ci biir jàkka ja wa yoq yi mu temuy liqaam suma yu salliha topp dana ko julli bu ñu noppee ci timis ja du ñu fa jekki tasab mbaa ñu fay naafila mbaa dara dañuy daal noddal gee waaye dañ koy noddi ci biir jàkka ja ndax dañuy bañ buñ ko noddee ca rajo ba mbaa ñu génn ci bitti nodd ko nodd ko xumb ku julli woon timis defe ne sa timis daa jotutoon mbaa am ku ko dégg defe ne sax gee daa jot fi saasa ak a xel yaar kon nag noddal ga gee moom dañ koy defee ci biir jàkka ja te bañ koy yëkkati bu nodd ga daanoo ñu daal julli gee mu daal jeex su ma yan salifoon topp nañu wëlbatiku wa alayhim te nekk na ci ñoom isfaarun desiti leer qabla ma xii bi shafaq ci njëkk faatu shafaq maanaam nañ gaaw boole timis a gee génn ñibbi te fekk mu wóor ne shafaq fàddoogut leer gam leeroon ci jamono timis ba tey ma fa ndax xam nga buñ fa xaaree ba far gee jote leen fa a baamuwaat gee rek ak jàpp dal ci julli timis julli gee daaw ñibbi taay fa yoo xam te loo far ba shafaq fàddu war a baamu gee ga ndax day mel ne rek ku julli si woon jàkk ji timis toog fa rek ba gee jote la fa noonu lay xaw a mel ba tax mu naa nañ gaaw noppi ca géega ñibbi te fekk mu leer leer gu wane ne ba léegi géejatagut ci wax fàddoogut wal jam boole ga bi xarafata ci xarafa bay na duhri diggante tisbaar waxase ak takkusaan xinda zawali fa tisbaar mooy rëccu jant sunnatu sunna la waajibatun suñ suñ feddali aj war lay firi fedd li mooy maxnaami bi azaanin ànd ak noddu wa iqaamatin ak liqaam li kulli salaat ñel gépp julli nee na boole gi ñu boole tisbaar takkusaan ci bisu arafa bi foofee ba àggal daal di julli tisbaar tekki takkusaan ñu boole leen ñoom ñaar te wàññi leen boole ci kenn ku nekk ñaar ràkk lañ koy julli loolu ba tey sunna su dëgër la wa kasaalika naka noonu fii jamhil maxribi ci boole timis wal xichaay ak gee bil musdalifati ci musdalifa isa wasala lim àgg na ilayha jëm ci moom ba tey boole ga ñu boole timis ak gee ca musdalifa mooy buñ taxawee arafa ba jant bi soo bañ taxaw fas ngir dañ fay bàyyi ko ñëw musdalifa foofu la ñuy jullee te boole leen mooy jul timis fa saasa sësale ci gee te wàññi gee waaye la wa dox ba bil musaafiri ñeel na ko an yejji ma xamu boole bayna salaatayni diggante yaar julli ya fi aaxiri waqti duhuri ci mujj waxtu tisbaar wa awali waqtin xasri ak njëlbeen waxtu takkusaan daa wax ne bu fekkee dangay dem te am looy dab bañ ma raw la xam ne kon da ngaa yàkkamti daañu la may nga boole yaar julli yu bokkaale waxtu julli yu bokkaale waxtu nag benn muy tisbaar takkusaan mbaa muy timis gee loolu leen di boole nag mooy julli gee julli nga ca des fa saasa balaa nekk bool dëgg-dëgg nag nga julli genn nga te fekk waxtoom jotagut mbaa fekk waxtoom jàll waaye li wax ni moom moom la ñu wooye jam xan suuri boole goo xam ne melaw rek moo di waaye ci dëgg-dëgg boole yow mi nga xam ne tukki woo sax nga ko ndax li mu wax nii mooy tisbaar jot nga bañ a julli bàyyi ba waxtaan tisbaar di bëgg a jeex nga daal di gaaw julli ba nga noo fa far takkusaan jot nga sësali ko ca xam ne kon tisbaar daa ñëw ci mujj waxtoom takkusaan ñëw ci njëlbeen waxtoom waaye kenn ku ne yaa ngi ci sa waxtu kooku melaw rek moo di boole waaye yow mii sax man nga ko yow mi tukki boo ko defee nag léegi da nga ñàkk tuyaaba yi ku teel na julli tisbaar tisbaar ma nga yeexee ba ci mujj waxtoom rek te boo ko teeloon julli ëpp la ngëneel rek loolu la ngay ñàkk waaye tax nga am bàkkaar ndax ku ne defoon ko ci waxtoom loolee mu wax nag ne boo dee bañ mu raw la mooy tax nga sañ boole lu mel ne tisbaaru takkusaan mbaa timis gee wax ji gën wóor mooy ngay dab loo bañ mu raw la ak amoo lenn looy dab looy bañ mu raw la ñoo yemoo képp bu moom da nga mën a boole yaari jul yooyee bokkaale waxtu moo xam tisbaar ak takkusaan la moo xam timis ak gee la daañu leeral ci dëgg-dëgg ni nga xam ne moom lañ leen di boolee booleeg dëgg-dëgg muy jam xan xaqiqiyan wa kasaalik naka noonu almaxaribu timis wal xishaaw ak gee ba tey loolu boole melo rek la mooy ba timis jotee jógu fa saasa da bàyyi ba gee di bëgg a jege si nga daal di gaaw waaj julli timis ca mujjug muxtaaram gee jot nga julli ko ci njëlbeenu muxtaaram nga xam ne kenn ku ne nekk na ci waxtoom ba tey loolu melo wi rek moo dig boole waaye ci dëgg-dëgg du boole waxoon nañ ne mi nga xam ne tukki wo sax sañ nga ko la ci am nag mooy nga leelal teel a julli timis ci njëlbeen waxtoom moo lay raw wa idar taxala ndeem laxas na mooy ndeem tukki na rek mooy ndeem bëgg naa dem rek fi awali waqti salaati ci njëlbeen waxtu julli wa al ula wa jëkk jamaxa mu sañ a boole xëy na ci waxtu woowee lii nag moo di boole dëgg-dëgg boole dëgg-dëgg foo ko fekk am na ci julli goo xam ne julli nañ ko te waxtoom mooy moxtaaram jotagut wala bañ koy julli fekk na moxtaaram wees li wax ni mooy bu dee tisbaar takkusaan ba tisbaar jotee fekk la nga wàcc ci béréb da nga fas yéene boo waratee moom timis rek jant bi so ngay wàccati mbaa timis jotale ci béréb nga fas yéene boo waratee moom fajar fenk rek ngay wàcc kon daañu la may bu dee tisbaar takkusaan boo jullee subaar fa saasa nga tekki takkusaan fa saasa nga xam ne kon julli nga takkusaan te waxtoom jotut bu dee timis ak gee itam daañu la may boo jullee timis nga teg ci gee fa saasee saasa te xam nga ne gee jotagut loolu benn anam la ci anamu ñaareel ba nag mooy bu fekkee fas nga yéene wàcc ci muxtaarum julli ñaareel ga ni ki ba muy tisbaar takkusaan fas nga yéene wàcc ci muxtaarum takkusaan mbaa ba muy timis ak gee fas nga yéene wàcc ci muxtaarum gee su boobaa kon nga julli rek julli gu njëkk ga ki ba tisbaar tisbaar doo ngay julli te xaar ba wàcc nag te muxtaarum takkusaan door ko caa julli bu dee timis ak gee itam timis rek ngay julli bàyyi gee ba wàcc ca muxtaaram door ko caa julli ndax yow soo jiital ko moom julli ñaareel ga amul benn max naa ndax nar ngaa wàcc ci muxtaaram moo tax anam ñetteel ba nag mooy ba muy tisbaar takkusaan wàcc ci daroor yu takkusaan mbaa ba muy timis ak gee nga fas wàcc ci daroor yu gee jàppal ne moom julli gu jëkk ga moom da koy julli rek moom ci waxtoom fa saasa mooy bu dee tisbaara danga koy julli bala ngaa dem bu dee timis ak gee itam da julli timis bala ngaa dem waaye julli ñaareel ga nag moom ndegam danga ko nar a jullee ci daroor yoom rek bu la neexee boole ko léegi ak tisbaar àggugoo ci daroor yoom sax ndax yaa ngi ci muxtaarum tisbaar waaye tukki bi may na la nga far ko julli léegi mu mel ne yaa ngi ci daroor yoom boo xam ne tukki bee ko ko defal tukki bee ko ko defal daroor yoom waaye la gën nag mooy nga bàyyi ba wàcc ca daroor julli ko ca ndax loolu mooy daroor yoom dëgg-dëgg ba tey bu dee timis ak gee te nga fas yéene wàcc ci daroor yu gee kon daañu la may boo jullee timis fi saasa nga sësale ca gee nga xam ne kon gee yaa ngi ko jullee ci ca dëgg-dëgg ci moxtaarum timis waaye nag dañuy jàpp loolee nga ko jullee muy daroor yoom woo xam ne tukki bee ko ko defal muy daroor yi waaye moom itam na nga bàyyi ba wàcc ci daroor yoom door koo julli moo gën ndax daroor yoom ba nga nar a wàcc mooy daroor yoom dëgg-dëgg ñii nga ko julli moom sësale ko ci timis daroor yu la ci moom rek ci kaw bi waaye ci dëgg-dëgg ne du daroor yoom dëgg-dëgg loolu nag mooy atte bi nga xamee ne dangaa wàcc ci béréb te si yéene jóg nag dem ñetti mbir yooyu la am bi ci des nag mooy yaari julli yi bokkaale waxtu bëggu jëkk ga jotee dalaa fekk ci yoon ngay dem niki tisbaar jot fekk la ci yoon wi wala timis jot fekk la ci yoon wi moom te fekkule nga wàcc benn béréb daa fekk ngay dem kooku moom ñaari anam dong la su fekkee ne fas nga yéenee wàcc ci muxtaarum julli ñaareel ga niki yaa ngi dem waaye fas nga yéenee wàcc ci muxtaarum takkusaan ca ba muy tisbaar takkusaan wala ba muy timis ak gee fas ngeen wàcc ci muxtaarum gee kon daañu la may nga bañ julli tisbaar fi saasa dama dem ba boo wàccee ci muxtaarum takkusaan njëkk julli tisbaar teg ci takkusaan nga xam ne kon tisbaar moom julli woo ko ci muxtaaram yaa ngi ko julli ci daroor yowum waaye tukki bee la ko may takkusaan nag moom julli nga ko ci muxtaaram bu dee timis ak gee itam dem yaa ngi ci yoon yi mën ngaa bañ jul timis yooyu rek ba nga xamee ne ak nga ci waxtu wa ngi wàcc muy ci muxtaarum gée boo wàccee daal njëkk jul timis xam ne kon da nga ko julli ci daroor yow teg ca gée yaa ngi ko julli loolu mooy benn bi bi ci des nag mooy ba muy tisbaar te nga nekk ci yoon yi da ngaa fas yéenee wàcc ci daroor yu takkusaan wala ba muy timis ak gée da ngaa fas yéenee wàcc ci daroor yu gée kon kooku moo gën a xéewale ndax daañu la may bu dee tisbaar takkusaan nga bañ julli tisbaar wéy wéy ba nga xamee ne wàcc nga ci daroor yu takkusaan ba nga nar a wàcc su ko defee nga julli ñaar ñëpp nga xam ne kon ñoom ñëpp da nga leen a jullee ci daroor yi julli woo ci kenn ci moxtaar bu dee timis ak gee itam daal la may nga wéy wéy ba wàcc ci daroor yu gee su ko defee door julli ñaar yëpp muy timis ak gee nga xam ne kon yaa ngi leen jullee ci seen daroor yi rek waaye jullee woo ci kenn ci moxtaaram loolu lépp xéewal la xam nga ne ndax daa fekkoon nga nekk ci yoon wi rek ñu may la nga yeex ñaar yëpp ba ci seen daroori yu boo wàccee daal leen di julli bu des nag bu fekkee boobu nga nekkee ci yoon wi nga amoon yéene yi man kat bala maa wàcc jant bi daa so te ba muy tisbaar takkusaan ba ba muy timis sagee nga ne ah man kat wàcc damaa yéene fajar fenk loolu mi tekki mooy nar laa julli yaari julli yi kenn ci ci wenn waxtoom du ca moxtaar du ca daroor yi loolu kenn kenn du la ko may li ñuy wax ne kon ndegam noonu la yow say boo boole jam xan suur yi yéen nga ñu weesu woon ci gannaaw mooy def mooy yaa ngi ci yoon wi demal rek bu julleegun si baax ba nga xamee ni muxtaaram mi ngi bëgg a jeex nag nga wàcc waaj julli ko boo noppee muxtaarum takkusaan jot nga sësale ko ca ba muy sa ak gee itam ñu ne la kon wéyal rek ba muxtaarum timis di bëgg a jeex nga wàcc gaaw julli ko bu ko defee gee jot nga sësale ko ca waaye duñ la may nag moom nga génne leen seen waxtu yëpp yëpp nga xam ne julliwoo leen ci moxtaar julliwoo leen ci daroor yi déedéet kon nag boo ko seetloo takkal nañ la bu baax a baax ndigg soosu ni mu deme boo xoolee saraab alfawakihu dawaa ni mu naa la wal awwalu iqaahu kulli salaatin fi waqtihaa wa taaniha an yanwiya an nuzola qabla la isfiraari fi duhrayni aw fi thulusil awal fi lxichaayni fa innahu yuaxiru alsalaata altaniyata faqat wa taalisuha an yanwiya an nuzola fi lisfiraari binnisbati lizuhrayni aw baxda thulusil awal fi lxichaayni fa innahu yuxayaru fi ltaniyati walxaasilu anna man zaalat alayhi samsu aw garabat alayhi raakiban lahu xaalataani wa man zaalat aw xarabat alayhi wa huwa naasilun bil manhal lahu lahu salaasu axwaalin binnisbati li salaati attaaniyati li annahu yusalli al ula qabla al irtihaali fi talaat walil marid ñel na aji tawat an yejji ma xamu boole itaa xaafa ndem ragal na an yoox la bu def nat ko xalaa aqlihi ci xelam hinda zawaali fatisbaar wa hinda xuróobi ak fa soga soo tawatee tawat joo xam daal yaakaar nga ne tisbaar jot na waaye jamono takkusaan moom da ngay xëm doo ànd sago mën koo julli mbaa timis jot na nga tawat ragal ne waxtu gee itam day fekk nga toll ci xëm doo mën a julli gee ci waxtoom kon daañu la may nga daal di nañu am na lu fi mat a leeral ba defee ne bu àggee ci waxtu ñaareelu niki takkusaan day fekk muy xëm mbaa boog ba mu tolloo ci waxtu gee day fekk mu xam ba tax mu boole tisbaar takkusaan mbaa mu boole timis ak gee su àggee ci waxtu ñaareel wa li ki ci takkusaan ja mbaa ca gee ga te xam gam yaakaaroon dalu ko kon na baamu ca waxtu wa doon ci sax daroor yi waaye it li fekk daroor yi rek na baamu jooju wax lañu sukkandikoo am na sax ñu ne du baamu waaye daal na baamu lañu sukkandikoo wa in kaana dem nekk na aljamx boole ga arfaq di gën a ñamante bi ci moom li batt ni ngir biir bi bu nekk ci moom wan xayu ak lu mel ni moom jamaxa kon mu sañ a boole wasata waqti zuhri ci digg waxtu tisbaar waxinda xay boobati shafaq yi ak fa faat bug shafaq daa wax digg ba rek waaye la jublu daa wax ni ba tey bu fekkee na nga amee jàngoro joo xam ne julli gone nga jóg waajal ko julli ko moom dong dalay metti niki da nga amee biir boo xam ne jagut mooy da nga amee rëdd biir am jàpp mënta yàgg yow kon nañ lay may rek ba tey jam xam suuriyeen bi waxoon kon bu subaa jotee mën ngaa bàyyi rek bañ ko julli fa saasa dema dem ba muxtaaram di bëgg a jeex nga daal di waaj julli ko ci benn jàpp boo noppee takkusaan jot nga sësali ko ci xam ne ba tey ku ne yaa ngi sa waxtu nga bàyyi ba chefax di bëgg a fàddu xam ne kon foofa la muxtaarum timis diem gee tàmbalee foofa boo waajee dal di gaaw nag julli timis ci waxtoom mu ca mujj julli gee ci njëlbeenu waxtoom nga xam ne kon ba tey jam xam suuri yan la maanaam melaw rek moo di boole waaye kenn ku ne ñëw na ci waxtoom julli bu njëkk rek moom nga yeexe ba ca mujj muxtaaram léegi nag ngànt tax nag moom daañu la bindal tuyaabay ku julli woon julli koo ci ba mu door a jot wala mos maa kañu xamal xale yi ci moom laa yaqut yi du fay maa nga xam ne xaraja génn na waxtu waxtoom ba fii ixnaa yi ci xamum nga wala laa jugee war nga ànd ak sa sago waaye koo xam da doon xam ba xim mi dañuy seet li des ci waxtu wa bu fekkee jàpp ne ni gannaaw ba mu ximee mën na fee laab am ci rakk julli ga war ko bu fekkee jàpp ne ne bu fi bu fi laaboon du ci mën a am rakk julli googu wàcc na ko noonu lañ koy seetee moo tax mën naa wa yàq di dana fay maa nga xam ne afaaxa xiqi na fii waqt yi ci waxtoom ba la nga xam ne yu dul ko dana jot mi fu ci moom rakkaatan ab rakka faak sara topp lu kóob mi ne salawaat ci ay julli waaw nee na jamono yu ximee la ñuy seet dañu nattale ak laabam ne bu laaban ba àggal daal ndax mën na fee julli ab rakka mbaa déet bi seete loolu xaj na fa rek julli ga war ko fekk lu xaju fa julli ga du ko war wa kazalika naka noone alxaaidu aji mbërëg ja tatxur mbir moom jigéen ji amoon deret deret ji jeex mën naa doon dereti mbërëg mën naa nekk dereti wasin waxtoom jeexe dañuy seele des ci waxtu ba xam mën na faa laab am ci rakk am dit su fekkee buñ tolloolee laab mën naa am bu doon am ci rakk kon julli googu war na ko bu gaawute dem sangu itam du tee rek muy bor bu gàllu ci loosam fa isa baqee dem des na mi ne naxaari ci bëccëg ba bax da tuxrihaa ci gannaaw laabam nga bi xëy tawaan ji lu yeex xam sa rakk xaat juróomi sàllat kon mu war a julli ak zuhra tisbaar wala xasra takkusaan ne bu doon ci bi mu dem ba yàgg mu laab ñu seet su diggante jant bi so ñu jàpp ne mën na fee sangu ba noppi julli fi juróomi ràkka kon nañu jàpp ne kon ñaar yëpp ko war mooy tisbaar war na ko takkusaan war na ko xam nga mën naa julli tisbaar ba àggal mu des benn ràkka mu dawal ko takkusaan balaa jant bee so te julli moom boo ko dugalee ne benn ràkk ci waxtoom rek day mel dugal nga lépp kon fekkee diggante ñett gi soo juróom raak xañ na fa day jàpp ne kon yaar yëpp ko war bu yeexamtaloo yeexa sangu mbaa dalay dutee rek bor ngi ci aw loosam wa in kaana dem nekk na albaaxi aji des ji lay li ci guddi ga arbaxa rakkaxaat di ñeent rakk sàllat a julli almaxriba timis wala xisha ak gee su fekkee dafa laab ci guddi gi ñu seet diggante suba fajar di fenk ñu mën faa julli ñeent rakk gannaaw bu laabee waaw bu ñu ko tolloolee laab ba noppi sang ba noppi mënees na faa julli ñeenti rakka day jàpp ne kon timis war na ko gee war na ko ndax xam nga bu jullee timis ñett day naan dana mën a dawal gee benn balaa waxtu waa jeex te julli boo ko dugalee benn ci waxtam rek lépp dugg na mel na ne su boobaa kon ndegam ñeenti rakka mën na faa des gannaaw bu kon yaar yëpp koy wa in kaana dem nekk na mi ne ci bëccëg ba aw mi ne loolu wala ci guddi ga aqalla di yees min taalika ci loolee sàllat kon mu war a julli asalaatu ga al axirat gay xam nga feeñ weesu woon ci bëccëg daal laab ba noppi ñu tolloole ne mën na fee julli juróomi ñu wax ne kon ci suba takkusaan yaa yëpp ko war fekkoon juróomi rakka xajuwu nag ñeent fa xaj mbaa ñaar mbaa ñett mbaa benn dañuy jàpp ne kon loola takkusaan mujj rek moo ko moom xam ne kon ci subaar bu wàcc na ko waaye takkusaan moom war na koo julli bu ko yee xam te loo itam muy rek bu dee ci guddi gi itam ñeent lañu waxoon ne gannaaw mu laabee ci deret ja bu nattalee ne mën na fee laab ci sangu julli fi ñeent rakk kon ko war muy timis ak gee bu dee lu ko yées nag mooy ñett rakk mbaa ñaar mbaa benn loolu dañ koy moomale gée bi nga xam ne moo mujj nga xam ne kon gée rek moo koy war waaye timis moom wàcc na ko wa in xaadat ndem bërëg na li haada taqdir ñel gën a nattale lam taqdi bu war a fay la nga xam ne xaadat mbërëg na fi waqt yi ci waxtoom wa waaw maanaam wax ne la bu laaboon ci yooyu jamono ci deret ñu seet ne mën na fee amuk laab julli fi nangami ràkk nangam kon war na ko xam ne yooyu jamono bu yeexalee julli ci sàggante ba moom far deret ji yees dikkal ko deret dikkal ko ju julli nga wàcc ko ñu misaal ko ci bu fekkoon ne tisbaar daa jot takkusaan jot moom jigéen julliwu ci dara bàyyee bàyyi ba nga xam suñu diggante jant bi so mais la fee julli juróomi ràkka mu gis deret xam nga fa deret daa feeñ tey laagu deret daa ñëw su boobaa yaar yëpp koy wàcc tisbaar wàcc na ko takkusaan wàcc na ko ndax jàpp ne rek mbërëm déet gis na deret ci seen waxtu kon wàcc na ko ba tey ni timis saajot julliwu ko ko dama dem ba nga xam ne suñu diggante fajar bés na fee julli ñeent rakk rek mu daal gis deret dañuy jàpp ne kon yaar yëpp ko wàcc ndax ndegam bu laaboon ci yooyu jamono yaar yooyu war bu gisee deret kon ci yooyu jamono yaar yëpp wàcc ko wa in xaadat ndoom bërëg na li arbaxi rakk xaat ñeen ñeent rakk mi noonu xaar ci bëccëg fa aqal la topp lu ko yées ilaa rek xat ba ci benn rakk aw li salaas rakxaat wala ñeent ñett rakk mina leen ci guddi ilaa rakxaat ba ci benn rakk xadat kon mu war a fay asalaatu julli ga al ula ga aji jëkk fàqa dong bu fekkoon ne léegi bëccëg bi ci daa jot julliwu ko takkusaan jot julliwu ko ñu xaar ba nga xam ne suñu digganteeg jant bi so nag juróom xëju fi moom jamono mi gis ne rek daal moom mes dafaa julli ñeent rakk mbaa ñaar mbaa ñett mbaa benn dañuy jàpp ne kon dañuy moomale loola takkusaan mu mujj bi xam ne kon war naa fay tisbaar tisbaar moom ko war na koo fay ndax li des ci ñu gisee des ca waxtu wa julli gu mujj ga lañ ko moomal te mooy takkusaan waaw ah, bu doon ci guddi ga itam nga seet ne julliwul timis ba nga xam ne suñu gën ko faa julli daal moom mooy ñett nga genn jullee jullit gee mi nga xam ne mooy mujj xam ne géega wàcc na ko waaye timis nag bi fa na fii xay dihaa ci ak mbërëgam na lay li ci guddi faxi la waxees na mis zaalik kem loole waxi la waxees na moom xaadat mbërëg na fi waqti maa ci seen waxtu fala taqdihimaa kon du leen fay ñoom julliwu ko gee julliwu ko dema dem ba nga xam digganteem fajar di fenk mënees na faa julli ñeent rakka xam nga ñeen rakk yi bu fekkoon ne jamono yi mu laado woon la ci deret xam nga ñaar yëpp koy war xam dañuy wax ne kon ñeenti rakk naa dawal ñett ñi timis dugal benn bi geexe xay bu ci laab moom ni ko waxee woon ñaar yëpp koy war léegi nag moom du ak laab da caa gis deret daa dem ba nga xam ne ñeenti rakka bi xaj diggante mu xajal di fenk mu gis deret booy jàpp wax ji gën a wóor mooy da ngay wax ne ñaar yëpp wàcc na ko da nga waxee woon rek ne borom ak laab mu yaa rekk wacc wàcc muy timis ak gee waru ci àjjul genn am ñu ne déedéet dañ ñu moomale la des gee rek xam rakk rek moo des te gee ñeent rakk la daa ne kon léegi dañuy moomale la waxtu wa gee xam ne kon gee ci la gis deret waaye timis war na koo fay fii nag moom daa ñëw ba ci ñeent rakk la si diggante diggante fajar di fenk mu gis deret te la ñu wutee nag daa am ñu wax ne ba tey yaa rekk koy wàcc ndax gis na deret seen waxtu ñoom ñaan ñëpp am ñu ne déedéet ndegam ñeent rakk la te gee ñeent rakk la dañ koy moomale gee rek xam ne kon gis na deret ci gee rek wala fay timis nag moom bis bu laabee timis ci bor bu nekk ci gàllu ci aw loosam say boo rek jàpp li gën a wóor mooy ndegam moom bu laaban ci yooyu jamono yaar yëpp war ko ba tey bu gisee deret ci yooyu jamono yaar yëpp da koy wàcc jooju wax moo gën a wóor wa man ay xanak wóolu bil wudoo ci am jàpp wa shakkati mu sikki sàkk fil xaddasi ci am toj ibtada amu tàmbaliwaat alwudo njàpp ma maanaam koo xam ne wóor na ko ne jàppoon na waaye léegi day xel yaar ba xam njàpp moomu toj na wala jàpp li gën a wóor toj na na jàppaat lu may nag moom am xelam daa baaxut bis bu ne mu dal ko benn yoon mooy ku taqoo siki sàkk kooku moom bu ko loolu dalee itam na téye njàpp rek ndax bu toppee xelam mu yàq moomu da ko daal di yàqal diineem ndax waswasa jax-jaxi moom day yàq diine ci cosaan na moo tax wa man dakara ku ci njàppam ma chey an dara min maa ci la nga xam ne xëwa moom faridatun farata la min ci njàpp mi ñu seet fa in kaana ndem nekk na bil qurbi ci ak jege ahaada mu baamu daalika loolee wa maag la nga xam ne yëlii dana sës ci moom wa in tataaw la ndem yàgg na daalika loolee ahaada mu baamu ko faqat dong loolu te lañ ko jàng ci jawhar maanaam bu fekkee ba ngay jàpp da nga caa fàtte woon loo xam ne farata la kon dañuy seet ba xam boo ko gaawee fàttaliku te yeggut jëmbi la nga fàtte woon bu mënoo koo ñàkk def faaw nga def ko waaye dañoo sopp na ko defee nga jàll baamuwaat la sësan ca moom mel ne ku jàppan ba toll foofa ci misaal boo fàtte woon raxas sa loxoom ndeyjoor bàyyi nga farata soo gaawee fàttaliku boo dikkee laa ñàkk raxas loxoom ndeyjoor waaye dañoo sopp nag boo raxasi loxoom ndeyjoor nga jàll raxas bopp càmmooñ jàll ca bopp ba jàll ca nopp yi jàll ba ca tànk yi mel ne ku jàppoon ba toll foofa teewul nag boo yemoon ci farata ja kese yem ca may raxas loxo ba rek yem ca mu daal di baax waaye sopp nañ nag baamu googu la ca toppoon loolu mooy buñ ko gaawee fàttaliku fekkee da nga ko yéex a fàttaliku ba mu yàgg nag moom boo dikkee farata ja kese ngay def waaye du ñu sopp sax nga jàll baamu la sësuñ ca moom foofu rek moo mu teqale wa in taxammadan dem tay na dalika loolee ibtada mu war a a intaala ndem yàgg na daalika loolee daa wax ne bu fekkee da ngay jàpp yàgg nga tey ko mel ne ku bàyyi jàpp mi xam ne ko ñàkk gi susale moom yaa ko tey wala ngay jàpp noppi bàyyi ci farata te tey ko kooku xam nga da ngay fo rek yàlla dogale susale gën la waxoon nga def ko jàpp mi ci bi ngay jàpp defoo ko te yaa ko tey kon jëm ma lépp day yàqu waaw sooy jàpp bàyyi ci farata boo xam defoo ko te moom yaa ko tey bu yàgg rek mu yàqu ndax dañ ne woon almuwaalaatu dañ ko alfawru ci téere ndaw yi xam nga boo bàyyee farata tey ko demoo ca ba mu yàgg loolu defoo ko te tey kon su boobaa njàpp ma day yàqu wa nekkoon na xaddu salla di julli fii jamihi daalika ci mboolem mu baamu salaataxoo julleem nga dem julli gannaaw ba nga fàttaliku ne ah jàpp ma kat bàyyi woon naa ci farata xam ne kon julli nga julli woon moom du baax ndax xam nga farata moom bu benn rek manqué day mel ne la nga doon def dara amu ci fara defoo ci dara kon nag saa yoo fàttee ab ci cëri njàpp yi dem julli gannaaw ba nga fàttaliku soo defee la nga woon sa yóbbu baamuwaat lépp loo julli woon du baax wa in dakara ndem na mislal mad madati ak sarax ndiku wa masxin ubbi na ni ak masaañaari nopp ñu seet fayin kaana dem nekk na xariban di aji jege faxala mu def daalika loolee wala yoxit te du baamu maa la nga xam ne ba adahoo nekk na ci gannaawam wa in tataawala dem yàgg na it faxala mu def daalika loolee li maa ngir li nga xam ne yustaqbalu def na ko jublu ci ay julli wala ci yeneen jaamu yàlla ba tey wala yoxit du baamu rek maa la nga xam ne sàllaa julli woon na ko xam ne an yaxaala ci def daalika loolee maanaam dara su fekkee ba ngay jàpp da nga caa bàyyi sunna mel ne nga fàtte galaxndiku mbaa saraxndiku mbaa masaa say nopp saa yoo ko fàttalikoo dañuy seet ba xam bu fekkee sa njàpp mën nga koo téye ba defaat ci geneen jaamu yàlla ñu taamu nga dem def sunna soosee ndax booy defaat geneen jaamu yàlla fekk sa njàpp mi matalay sunna moo gën njàpp manqué ay sunna waaye bu fekkee da nga yàq njàpp mi léegi ni ki yaa ngi bëgg dem ci wana wat léegi kon du aajoo ngay defi sunna soosu waaye ndegam xas bëgg ngaa téye njàpp mi nag moom ba defaat ci geneen jaamu yàlla daañu bëgg nga dem defi sunna soosu nga fàtte woon ndax booy def keneen jaamu yàlla fekk njàpp mi matale ay sunna moo gën mu manqué sunna du tax du la nga julli woon dara yàqu ca ndax bàyyi sunna moom di yàq di yàq njàpp di yàq julli wa man ku ku julli xalaa mawdihin ci ab béréb taahirin bi ajlaab min xasirin ci romb jaan ci wolof ngi wax tasarant tasarant baat wolof la bu yàgg waaye mooy romb jaan wa bi mawdihin te nekk ci ab béréb axara beneen minhu ci romb jaan gi najaasatun sobe fala shay di ko war nee na boo dee jullee ci ak romb wax la léppi sajaada bi daa war a set wecc ci sobe wala léppi toppi bi baa lépp pasam gi déedéet fa nga xam ne yow boo dee julli say cër di ko laal rek lañ jàpp ne mooy sëb jullikaay foofu moom bu fekkee takkul sobe rek dara laalug sobe rek baax na man ngay jullee ci topp bii sawet sobe nekk su aay waaye dagam yow yuti wala moom dara fi nga jullee moom dara laalu ko ci rek kon baax na te nga jullee rek lañ jàpp ne mooy sibiré bu jullikaay wal maridu aji tawat ida kaana dem nekk na ala firashin ci ab lal najisin bi aji sobewu falaa ba asa ayit an yabu sota mu tàllal xale ci kawam tawban malaan taaxiru mi aji laab kasifa mi aji fat wa yusalli te muy julli xale ci moom fat googu mooy tal rek mën ngaa wax kasifa mi dafa wax ne boo tawatee ba nga xam ne wàcc yomb la bu fekkee lal bi nga nekk daa sobe itam boo ci lalee toppi bu set te rek wala am mbalaan mu set te rek wala der mbaa leen ne tal ne mën a julli ca kaw lal ba dara nekku ca waaye mën nañoo gàttal ci ne ku tawat ak ku tawatu ci jëm bu bërëb ba amee sobe daal moom boobu xasee lal lu tal te rek mën nga caa julli loolu moom ki tawat dong moomu ko wa salaatul mariid jullik aji tawat in lam yaqdir ndem attanut xalal xiyaam ci taxaw salla mu julli jaalisan bi muy aji toog in xadara ndem attan na xalal taraboxi ci farankalaayu wa illaa ndem mënu ko fa bi qadri taaqatihi kon nekk na ci kem kàttanam ni nga jàng ci jawhar nag moo gën a neex a takk